am na yoo xam ni dafa mel ni sax dañ may teg ci xaan quoi mais yan conseil ñoo ma tourné le dos moi je n'en vois parmi les conseillers conseils yi mais la plupart c'était même pas des conseils c'était pas des conseillers en termes de ils n'étaient pas assidus au conseil municipal pour l'essentiel ñooñu nekkuñu woon ak man man maa nekkoon ak ñoom man maa doon jëflante ak ñoom ngir jom mais musuñu nekk ak moom et je le savais mooy li ma wax léegi rek fu tooy ñu dal nekkuñu fenn foofu ñu dal c'est des sauterelles ils n'ont jamais été avec nous ils n'ont jamais été de Taxawu Dakar jamais et sur cinquante six c'est quatre ou cinq qui sont partis nga amee mu tourner le dos mais quand tu me parles de Ibrahima Ndiaye à tourner le dos ça quand tu me parles des hommes et des femmes de valeur qui sont dans le conseil municipal et qui sont restés avec nous j'aurai des problèmes mais ceux qui sont passés ceux qui sont partis mais c'est la mauvaise graine même le paysan buy semé jiwu bala ngay ji foog nga tànn jiwu bi bu bëggee lu bon da nga dañu faciliter sax la tâche en nous quittant parce qu'ils savaient qu'on n'allait plus les reconduire ils sont partis d'eux-mêmes bon vent bon vent fu ñu xam jëm et loolu mooy indi aussi ñuy dugg ci réseaux sociaux yi di wax mais ko preuve doo di dama preuve da ngay wane moi j'ai des preuves di dem nañ ci réseaux sociaux jaay oto yi année L200 bi gisuñu ko muy daw fii say am na ñoo xam ne je te ce que deret moo nekk seen yaram man dama am jom ku amul jom nag duma wax ak yow koo xam ne bu la gisee réel la non non bu demee di bind lu ko neex mais comme loo koy wax et ñu ci bari même bu ñu nekkee conseil yàlla ak man parce que bañ leen def conseil dañ ne bu leen bind parce que ñu def dara ma bañ leen dégg dugal le tey wax yooyu comment comment un peut détourner c'est une aberration parce que xaalis bi ñuy wax yëpp mais le conseil municipal qui vote c'est le préfet ou le sous-préfet qui qui approuve c'est le percepteur qui paye et le percepteur c'est sa responsabilité personnelle et pécuniaire qui est engagée mën détourner wax ju bon dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaan avant ma agsi déggoon naa démb ñoom taxawaay bu ñu amoon ci ay secours yu doon dem ci kër chrétien lañ ca def duma ko wax parce que man xawma lu ñaaw man nag may pes ma tànnal la beneen def donc demoon nañu sàmba bi demoon nañu ba ni Cheikh Gueye dafa am kër Almadi man kañ laa gëj Almadi ba ma waaye ko wax ba ma tase ak moom ni ko fan laa amee kër Almadi muy ree ne ko loo mën ci moom yow toi tu n'existes que par euh, Facebook ah maa ama jotu Facebook am naa joti leneen am naa joti dem di def pavé am naa joti dem def tani am naa joti def leneen mais ama jotu xiiroo coow li ci pindu teen bi gars amul bag la fii muus du fi naan ñeex et je prends au défi quiconque bu amee preuve na nga génn mais man nekkuma au pouvoir ah ànduma au pouvoir moi je combats Macky Sall et tout ce qui lui ressemble Benno Bokk Yaakaar et d'ailleurs même le candidat de Benno Bokk Yakaar tu me permets même de le citer le candidat de Benno Bokk Yakaar de la commune de Dieuppeul-Derklé mon cher frère li ma xam ci moom ku yaru ku noppi ku dal ku am yërmande mais fa mu nekk baaxul et souvent dama damay fàttali wayu Papa Diouf bul dem foofu foofu baaxul benn bokk yaakaar baaxul foofu wóorul mais nit ku baax la parce que man mënuma politique ak yow ànduloo ak man rek ma rey wala ma tiñal la loolu nit na def loolu ma wëlbatiku bëgg la xoolal nañu bëgg def Ousmane Sonko nit mën na def loolu ma wëlbatiku bëgg la mais yow na ngay nekk ci commune tu es membre du conseil municipal saa yoo ñëwee ñu minorise la saa yoo ñibbee si kër di bind lu am ak lu amul jubóo sa jabar jubóo ak sa doom jubóo ak kenn kenn bëggu la mais ko dinaa ko tontu j'ai pas son temps aw ma jotoon